injil bi ngir xale yi kii di ko xam ne juddub yeesu ki ko bind edward hughes ki def illustration bi mayo ki ko tekki christian lingua ki def adaptation bi flush potter ak sara ki koy liir fodi musa njaay nettali fanweer ak juróom benn ci juróom benn fukk jokko www point bible for children point org www point m fukk ak juróom ñeent fukk ak Box ñett Winnipeg MBR ñett C ñaar Canada licence am nga sañ-sañ copie wala it téere bi bu nekkee ni doo ko jaay bu yàgg-yàgg yàlla yónnee malaaka jibril ci benn xale bu jigéen bu rafet te di yeewu te tudd Mariama mu ne ko di nga doom ju góor te di nga ko tuddee Yeesu dinañu ko woowee doomu aji kawe gi dina nguuru ba faw Mariama yéemu ne ko lii naka la mën a amee mësuma xam benn góor malaaka bi ne Mariama ni xale bi ci yàlla lay jóge ni du am baayu nit malaaka bi wax Mariama it ne ku mu bokkal Elizabeth dafa ëmb ci màggetaayam lii itam kéemaan la woon ba loolu amee Mariama dem seeti Elizabeth ñu booloo màggal yàlla Mariama dafa waroon a sëy ak ku góor ku tudd Yusufa Yusufa tiis ba mu yëgee ni Mariama dafa ëmb mu xalaat ni beneen góor moo nekkoon baay bi ci gént malaakay yàlla ne Yusufa ni xale bi doomu yàlla la woon yusufa dafa waroon a dimbali maryaama ci sàmm yeesu yusufa wóolu ya wóolu yàlla te déggal ko it mu topp itam yoon yu dëkkam tëral ndax yoon bu bees bi moom ak maryaama ñu delluwaat ci seen dëkk betlehem ngir fay seeni task waxtu bu maryaama waroon a mucc agsi wante yusufa mënuta woon a gis néeg fenn ëbër si yépp dañu feesoon yusufa mujje gis ab bërëb foofu la gone gi yeesu juddoo yaayam tëral ko ci lekkukaayu jur gi maanaam ci bërëb bu ñu tàmm di defal mala yi lekk lu soriwul dara fa ñu nekkoon amoon na ay sàmmkat yu doon wottu jur gi doon nelaw malaaka yi yàlla feeñu leen ngir xamal leen xibaar bu neex bi tey jii ci dëkkub daawuda ab musalkat juddul na leen fa te mooy almasi bi di borom bi li ngeen gis liir bu ñu laxas ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur bi mu waxee loolu yeneen malaaka yu bari yu jóge asamaan ànd ak moom di sant yàlla naan nañu màggal yàlla sa asamaan su kawe sa te ci àddina na jàmm wàcc ci nit ñi mu nangu nax yiwam ñu daldi gaawantu dem gis liir ba ñu tëral ko ca lekkukaayu jur ga bi ñu leen gisee ñu nettali lu leen malaaka yi waxoon ci mbirub yeesu ba ñeent fukki fan jàllee yusufa ak maryaama yóbbu yeesu ci këru yàlla ci yerusalem foofu góor bu ñuy woowee simeyon màggal yàlla ndax liir bi ak màgget bii di aana beneen jaami borom bi di ko gërëm itam ñoom ñépp xamoon nañu ne yéesu mooy doomu yàlla musalkat bu ñu dige woon yusufa saraxe ñaari pitax lii mooy maye bu yoonu la waxoon ni miskin yi waroon nañu ko indi bu ñuy indi liir bu bees ci këru boroom bi ay waxtu topp ci mu am ab biddéew bu indi ay boroom xam-xam ci dëkku yerusalem yu jóge ci benn dëkku penku ñu laajte naan ana juddu nekk buuru yawut yi dañu ko bëgg a màggal buur bi erod dégg boroom xam-xam yi mu jaaxle mu ñaan leen ñu wax ko fu yéesu nekk bu ñu ko gisee mu dolli ci ne man itam dama ko bëgg a màggal wante dafa doon fen erod dafa bëggoon a rey yéesu biddéew bi yóbbu boroom xam-xam yi ci kër ga fu maryaama ak yusufa nekkoon ak liir bi ñu sukk te màggal ko ñu may yéesu wurus ak cuuraay yàlla artu boroom xam-xam yi ñu ñibbi seen réew te bañ a wax kenn erod daldi mer lool mu fas yéene rey yeesu buur bu bon bii rey liir yu góor yu nekkoon ci betlehem yépp wante erod mënuta woon gañ doomu yàlla bi ba ñu ko àttoo ci biir gént yusufa jël maryaama ak yéesu gàddaayu jëm réewu misra ba erod faatoo yusufa génn réewu misra indiwaat waat maryaama ak yeesu ci seen dëkk ñu dëkk ci dëkk bu ndaw bu ñuy wax nasaret te mu nekk ci wetu géeju galile juddub yeesu nettali bu jóge ci kàddu yàlla gi injil bi gis nañu ko ci mase benn ñaar luk sa pirim kàddu day leeral saboor téeméer yàlla xam na ni def nañu ay mbir yu bon yu muy woowe bàkkaar mbugalu bàkkaar mooy dee yàlla def ñu bëgg lool ba waral mu yónni benn doomam képp ku mu am yeesu mu dee ci bant bi ngir fay suñuy bàkkaar yéesu dékki ba delluwaat ci kaw asamaan léegi yàlla mën nañu baal suñuy bàkkaar boo bëggee dudd say bàkkaar waxal lii yàlla yow yàlla gëm naa ni yéesu dee na ngir man te mu ngi dundaat léegi maa ngi la koy ñaan ñëwal ci sama dund te bal ma samay bàkkaar ba mu mën a am dund gu bees léegi te ma mën a nekk ak yow ba faw dimbali ma ngir ma mën a dund ngir yow ni sa doom amin yowaa ñett fukk ak juróom benn jàngal injil bi te waxal ak yàlla bés bu ne